kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te C'est assez Équipez-vous à petit prix. Eau royal bour ndox Sengold Gold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 africaine. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Pinot Fashion, Ara, Vision Couture, Babs VIP, Yamina Collection, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, Polel, MKB Store, du Chun Style, ጀሌ ጀቦ ደምረቹላ génn sama nekk. génnal nga sama nekk tool. aw sax la moo xew. bul ma laaj li dana Sadiq. mën naa doon ba ma manqué de respect ñàkkal ma fayda respecté woo ma mais kanta dugal jeeg sama biir nekk am biir sama kaw laal génn sama nekk. aw sax mënu ànd ak dal. génn sama nekk génn. nga sama nekk. sama ak àdduna AOC xam nga ne góor gi mi ngi fi moo tax nga def sëfu naafeq yi di am am la fi tey lii gis nga lii muy xeeñ yaa ciy fanaan muy tooy nga ciy fanaan yow da ngay amoon fi yow kañ nga commencé di rafetlu taw eh wuy ma fii dama bëgg nga wax ma kan moo la yokk sañ-sañ kan moo la yokk fi AOC. c'est-à-dire li ma ne dafa metti ban jigéen mooy nangu sa wujju ci sa kaw lal waxatuma ngay fen o seex dama bëgg a xam kan moo la influencé laa wax aw seex yoo lay wax eh waxal eh, eh wuy ma waxal ak man eh doo wax ak man waxal kan kan kon yoo ah, la la bu dara damaa xaw a rek te yaakaar naa ne lu normal la. Leila ku la waxoon ni man Ndiouga Thiam dinaa jël sama doom may ko gér est-ce que danga ko gëm. dama sant yàlla bi ma amee waajur bu mel ni yow mosoo maa seetaan ci dara te nag xam naa ne fonk gi nga fonk sa aada ak sa cosaan loolu yëpp xooloo ko. nga may ma Babacar mi nga xamante ne géer la. gis nga àddina weeru koor la fekk dog jotul rek à tout moment mën nga dog dama lay nettali benn histoire benn waay la woon ci jamono yonent yooyu am doom bu jigéen rek gàcce la yàlla nattu ko nag ci la tël doom ji dem ba ca diggaal ba commencé gas bi mu gasee ba mu xóot ci la toog di dallu sikkam ba taq suuf xale ba jóg di ko fompal ba mu dalloo ba pare dafa jël xale ba dugal ci pax ma ak bakkan ba daa di suul xam nga kan moo def loolu kooku Omar bu nu xatab la avant muy dugg ci diine pour woon la na rek àddina dafa tëradi yàlla def na ko jullit jël ko def ko saaba yonent bi waaye li gën a yéeme mu def ko imaamul muslim loolu bëri na lu muy jàngalaate mu jóge fa dem màkk ba ma demee bi ñu armalee mënoo xamee kan mooy président mënoo xamee maçon ba yooyu nag su la yàlla jëlee ci loolu ba nga dellusiwaat foofu nag jaamu suñu borom rek moo may war daf dafloo ba loolu moom ñu nag dañuy am rëbb borom bi te yal nañu yàlla musal ci ko borom bi rëbb Leyla Leyla lenn rek laa lay dénk gis nga suba ci waxtu wi di am beneen kilifa budul man waaye lépp loo xam ne sant na la ko te diine nangu ko na nga ko def lu dul nga déggal sa borom kër borom kër du morom sang la soo demee na nga ko jaam ndax gannaaw yàlla ak yonant bi muy doon sa kilifa ma bëgg soo demee na ko muñal déggal ko yem ci ay loxoom du gis nga sa yaay ni muy sëyale dama bëgg nga sëyal ko sëy bu ko raw te jigéen rek moo mën a taxaw ne fa ma jëm danaa fa am lu baax te dara du ko maye lu dul nga nangu doon dàll lu ñëw rek tegoo ko soo ci taxawee yàlla dina la may lu baax te nag diis na ci man loolu ndax li ma gën a bëgg laay maye waaye sama borom ko sant te ci ci dénkaaneem dong laay dox jëm yàlla na fa yëw yàlla jëm maa ngi lay sa mas man ba na cœur. Hmm. Aujourd'hui, on a pas mal de courses à faire. Hmm, ben, je suis un oh. Oui, ma, tu Ça y est, un petit bail. C'est que je sens plus mes pieds ne sont plus tes pieds. Au ah. début, nga xamante la premier mi-temps rek ba nga ma Je suis la. mais ma ba suis nga sa ñaari Je rek mais allez Je suis retour. na match retour Je suis c'est quand tu hmm. veux. <laughs> Hmm. <laughs> sama bi suis yi ma moi mais bi yoon damay changer sëriñ. foofu nga nelawee nak man may sa sëriñ lay wax ci. ma té laa jébal sama bopp benn yoon. <laughs> defal lolu ma doli wala ma wàññi. oui ma xawma dama bëgg lu metti doli ko ko yomb bu ko wàññi. baax na amul problème léegi je vais te laisser. d'accord. et euh, bah je te retrouve à la maison ok. d'accord. ça marche à tout à l'heure. te dois croire sama sañ c'est bi sax yow. <laughs> tatan ko re sama takay ah macha allah ni de la fase no go ngor gi nak def ko mu deg lool ah macha allah dogal nak xol noni nak li la beug def de e magale c'est très joli xana maris magale ah danga cee war a jàmm dama laa jàppale xam man sama xol la la def yaa <laughs> jonga ma kay li mm. Allah firtu mënu ko am de dua ma ne abal bii féete càmmoñ ma boole ak sama manière bi yow ma ne nga bankal ma sa yu ah ah abal ma bii udah dafay tak yuy ànd ak marinière yow damay kaf ak yow rek man damay foog yow rek yow xam nga ne su ma doon abal takkaay sax du ma la ko am yow tante ko rek xanaa ku la xamul yow loo kafee loolooy dëgg ci yow ah kafoo de man dama laa xam yàlla xam nga ne su ma doon ab takkaay du ma la ko am walaay damay kaf ak yow yow njëfi sa jikko ji nga war ci yow na yow mën nga bàyyi turu wala turu yow dama lay laaj ndax yow mën nga bàyyi turu njëfi wala mëno bàyyi turu njëfi anaku billahi so bàyyiwul turu njëfi ci dug kër gi ba ma dul berek sa kaw yalla naa billahi la di ko man nak ding ko man berek gi mom ding ko nak ma woy wat njëfi ci digg ëtt bi ko xol wa bal ma ay man ma waaru man ci am xam ne xamu fo wara woné wo ak fo warta woné wo ah ah tay nak bis bi mom lay mo ay tamuy deug wa léegi nak bu nit yorut wérut ay nelawam doyul koku nan lay wane wo yow bëgg ngaa wane wu da ngaa yorut da toog toogaayu ku yorut ñun ñi yor dañuy wane wu. yow njëkk yi. xam ne lii. macha allah. yow njugaay sa baay njugaay sama baay. Mm-hmm. deret ji daw ci yow rek mooy daw ci man. nga nekk caatam nag. Mm-hmm. dama lay wayal ba mu neex. Thiam Babel Demba Thiam borom ngeen yow la sama mag ji dugalee rek damaa neex sama xol dafa sedd guy kontaan naa ci yow waaw ma ne loolu lañ gaaw ngeen dem salon balaa ngeen a tardé. ok ñu ngi dem nay sax. privatisé woon naa benn salon donc du coup euh, si tu es prête on y va ay yow jaru ko fa mais c'est gentil quand même.

eh taxaw way toog leen mais ñu ngi ñëw ay yéen a jonga ma kay ah fii sama waj yow ndam rek macha allah eh, lay laa jaam tey du bisu sumbu gaynde tey bisu takk la damaa bëgg nga ànd ak famille xale bii nga allah dafa élégant àndal ak ليلى تاي سجور لا تي دوجو بوغا مانتين نانا ورا امبريسيون امو بروبليم دابا نيو ماكيلا انا واش يا خدي مويسكا انا نانا فا مريم تيام يا فال ماتا مريم يا ابو دولة اه يو دابا في مانا دك يا من يا ابو دولة بوكا زين يا تاي يا ابو دولة يو دو مانا دك يا تاي يا ابو دولة جلال جلال لا اله الا الله يا تاي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

comme ba xam nga ni xool lañ nga si am gis nga mag su ñàkkee fayda ba jomom réer ko xale am ful toog si man télé bu fayee sax ma xam li muy wax au fait yow la kan si tout temps kii je pense que tey dem nga jardin une chose xale du rey nag fees ko xale du tabaski. ça va. sant tranquille mon ami xam nga ni ma mel si montre bout de déréglé j'aime les remettre à l'heure joli bracelet. merci Ya am góor nag. peine perdue de la fi gis bal bi lay rey ko dégg. Khalid.

eh mante ital na lele nulu ay eh, kris dajal zio kam tege fen te sah nak suma mele ni ma wara mel bagu rom ma di ma gez manu lala asima ki ngai wakal sude ke per vera manu lala asima nu yagu an ay eh, jigen dila gez eska manda masi wak kholal fatel lol graw en jal ti lene da yom bu torap ngawak lingi akhbar bugun jar sile lene dufi amen tamil bu muka yo kham ngani man yo la te ku fir man yo rek lay top te yo bu mu kan mu mere servir Buso dina la gère. Wabe. Hé. Mal naa nag. ii Layla tey moom ambiance nga woote manger ak feetu. et pourtant je suis tellement stressée je ne sais pas pourquoi. pourquoi mais c'est normal c'est la première fois. waa ma ne cat cat contrôler sa de. si mbëggay da lay bañ de nga wo say naw la ci souf Charlotte Badiane mère ñi mu indi ce sont des professionnels xam nañ bu baax lan la def ay ini ma ki professionnel man na nek de waaye am nek bo leen dalal mu taru lo ta jonguma ñu def décor bi <laughs> mo yombul nag pour fi rek bir <laughs> du ay fo nek bu fi duggi sa da ngay senko da xol bu sedd sama jeeg bi kenn du yow ci mi réew remplacer la ci bir kër yombul am jéeg yomb na de waaye jéeg boo gis jégit la jéeg baa ngi waaw yow laf cat xam nga lu ci yow yéex a ñëw yéex a jóge pare ñëw caameen gii laay jooy ba nga duggee ba léegi te baa fakkaa la macha allah gis ni ma def. waaye bàjjen sama maquillage bi rafet na de. am la yombul de moo tax dañ laa ngëpp lii yaay suñu si 5000 kenn du yow ci mi réew maa ngi nii di wàcc ci suuf. soo wàccul ci suuf fooy wàcc ci kaw. yow jàpp ko nii rek doom ni fi sax ni reenu garab de cim. boole ko yu ko accompagner yaa ko war a dëkkal su tawatee yaa ko war a cam ni gan ñi doon xaar ak say gune de xam naa embouteillage bi moo leen war a téye rek mais li wërte mooy Dakar dafa xat Bakir déggante ak ñoom benn yoon déggante woo ak ñoom de kenn woowaguma de hmm. ñoom si liñ def ki la nit dul def sax ñu lay may jabar nga toog ba heure bi dëgg dëgg rawtan lii ñu leen di may waaw damay xale mel ni ngay teen defar. du gonentu de gone dëggantaan njaay la lii lañ ko def tendance. jarul di yàkkamti ndax lii tuyaaba rek ngeen fi jëlee. Mhm. eh li ma doon wax nag yaa ko war a dundal. Mhm. yaa ko war a sàng. Mhm. yaa ko war a dëkkal. su tawatee yaa ko war a faj. jigéen nag mayuñu la ko pour nga di ko jaay ne man maay borom kër gi maay kilifa bi. def ko comme sa bop lo xamne beggo yow ku lako def bu ko def sa jabar jigen mo gëna metti le ci sey ndax bañ nañ ko mom ni ñu ko tejje l'islam tejje won ci bir kër mu baña genn mu baña perturber ben yoon nga xamne bu jëkërëm ñëwee lu mu andi ci choono ak metti ak yépp mu man ko dékku motax ñu tégon ko ben place mu ne dégg bañ am ko xoolal yor doom ni mu metti boole togg añ dem marché ñëw waaw yooyu yëpp ko defee dafa metti ba pare ñu sant ko nag bu ñëwee sa jëkkër bu ñëwee yow na nga ko muñal. loolu moo tax. du mm-hmm. ñu war a caaxaane. Mm-hmm. jigéen soo ko dénkee. da mm-hmm. nga gëm yàlla. ci boppam moo la ko jox. waykat yi du ñu maye ci stade

ndax àdduna nag day def nekk. te sama caat maa ngi. ñëpp a ngi naan caato caat dundal tey bu ne caato caat ñëwal. alors mooy tàcc tàcc bu baax. allo Mary waa génn léegi ñu daje c'est urgent ci escalier nag juste ok man maa ngi génn ñaareel ok. wala mu couleur bi indi beñe bi lay tetal ça va lan moo xew lu xew ba nga wone ma téléphone man excuse bi bidon la joxe qu'est-ce qui se passe ni lan la da ngeen maye ba pare Ibrahima lan mo xew yang may tital de. Marie sey bi amul. takk ban wax ko ni carrément mënta nekk nga am jàmm ñëpp am jàmm mu jeex papa loolu yow yaa ko mën waaye man mënu ma ko de mais man leen rek laa la bëgg xamal suba ci heure bi incha allah Leila princesse Thiam elle sera la mère de mes enfants i eh! Ale Mbow Babacar toogal fi yow est que yow xam nga sax d'abord ay biddew yoo xamante ne nii dëppaloowul mais lan lay tekki yow bi nga fi ñëwee wax ma ne dangaa bëgg da takk tëgg maa njëkk ànd ak yow supporté la mais bii dañ koo xool ba xam ne yéen ñaar seeni biddew àndul Babacar li ma bëgg nga xam ko mooy mbëggeel ci anam mu nekk lañ ko mën a wanee yërmande mbëggeel la fiiraange sax mbëggeel la waaye mbëggeel bi ci gën a mag nag mooy sacrifice te yow nag ci nga toll. dama ne fii nekk la ñuy mën a xamee yow sa mbëggeel ci laa fan la toll. mais bul wax xalaat xam naa li ngay xalaat Babacar man sa baay laa je ton père gis nga li ma war a wax ak dinaa ko ko wax te dina ma dégg yow nag xam nga qu'est-ce qui te nga jël tes clics et tes claques et tu en Italie bul tàggu kenn li nga xamante ne nag mooy wax yu sew yi fi nekk ton père va le ménage moom yàgg na de. moom xoolal muy laajte yow nag tey bu dara sonal toogal rek yow daa toogal rek tey bu dara sonal. yow princesse da ngaa yàkkamti de waaye léegi rek. kon da stressé eh wàcceel sa yaram tey moom sa bis la damaa bëgg sa lépp a nga mag ñi bu ñu sa jàkka ja rek kenn ku nekk loo xamal sa morom ci lu baax danga koy wax dañuy toog di waxtaan seen xeetu baax baax waaye léegi rek bi surtout papa bu ba sama ëtt di netali lu daw, ak lu dawati jek xam nga ne duñu gawat ak xam nga lolou sax waaye nag yaa jonga ma nak eh neena la tuf tuf tuf xalo ci bët bu xonk ak bët bu ñuul léemu na la Halil, Doe Reufi. Halilou. Mary. doo ñëw ñu dem nga je ci biir. ah déedéet xanaa Halilou dina ma félicité ba pare sax. yow qu'est-ce que tu as lu toll ni sama jour mariage ngay am comportement qu'est-ce qui se passe Nilou. saber saalit de jullit du saalit yàlla moo la ko teg jaam day ndogal Layla bu ma yaa ngi saalit yow mi mag soo defee nii gone yi nan lañuy ñuy def ah maam Bousso maam yéen nag may bëgg a jaaxal kat su méttee ci ngeen wara délo sen bop ci yalla sant ko xamni kat après nakar gu nek bànneex a cay tegu yàlla li warati na la sama lingeer mo ne matuma dammeel dafa fekk ni jaam ak pexem suñu borom bi ak ay dogalam warati na la sama jant mo ne sama dundu nak dootul leer dina jafé nak nga comprendre moi waaye sama mbëggeel ci yow sut na samay bëgg-bëgg ba tax na ñàkk la nga nekk ci jàmm moo ma gënal am la nga nekk ci fitna su dee sañ naa la ñaan dara Layla moo di ni nga bàyyi sa xol mu noyyi bul tëj sa xol danga moytu wéetoo ndaxte wéetaay dafay wowal xol man nag dem naa sama jant dem naa fu sedd fu wéet fu metti waaye nag xamal leen jaral nga mën ko raw